maam Amadou Samba maire de la commune de Cambérène sant yàlla ndax defe naa ku fi ñëw tey kontaan nga ci ubbeel bi ndax fii la ñu ubbee Cambérène yàlla dogal si kattanam ma nekk maire bi donc euh, kuy kontaan tey man maa gën a kontaan ndax euh, waxtaan wi neex na nit ñi ñëw nañu macha allah ndax nit ñi euh, waxtaan nañu ñaan nañu sikkar nañu ba ñëpp a ngi dem. su ngoonee ñu fas yéene dem Yoff donc man loolu dama si kontaan en tant que maire en tant que waa Cambérène jàppante nañu effectivement ndax yi ñu amoon mooy yooyu nettoyer ay moyens la yoo xam ne secteur yoo xam ne suñuy maigre moyen mën na ko waaye nag loo jëm si ay aide pèlerins yi aide famille religieuse yi aide daayira yi loolu dafa laaj ay moyens yoo xam ni ñun gérer wuñu xaalis état bi mooy gérer nos fonds alors biñ ko defee ñoom dañu ne amuñu fa ay fonds ndax trois mois mi ngi nii ou quatre mois salaire buñ leen fay dañ leen ko lebal mais amu leen fa xaalis mais man loolu defe naa faux prétexte la lay bu taxawul la ndax tey ñi fi ñëw tey ganu Sénégal lañu ganu état bi lañu te buñ fi ñëwee donc laaj na ñu mën leen teg si bonne condition ma te loolu ay loxo du ko def xaalis moo koy def donc ñu ngi ñaan daal état mu jàppale ñu si loolu dimbali ñu nag si Cambérène ndax Cambérène cité religieuse la dëkku diine la infrastructure moo fi manqué marché baa ngi nii am nañ espace dañ ñu ko tabaxal waaye am nañ si yaakaar ndax président la république bi mu ñëwee démb Yoff chez le xalif nee na pour jàppale ñu si bépp liggéey boo xam sumb nañ ko boo xam ni daal dans le domaine milliards devant le ministre ñoom santé bi en tout cas jàppale nañ ko li ñu joxoon daaw daal defe naa nañ ko yaakaar naa bu ñu ko doublé wul tamit nañ ko bari bari waaye santé moom du doy santé secteur bu doy waar la te mënu ko mesurer mais je sais que nañ si ay jéego kooku fa technique la parce que lu tax mooy euh, rassemblement yu mel nii dafa laaj vigilance ndax ku nekk jóge fu nekk kenn xamul sa moroom li mu indaale bien que sax a ah, ni ñëpp daañu ñëw baax ndax liggéey nañu liggéey boo xam ne ñëpp lañ ko defal di leen ñaanal ñu continuer xam naa ne yokkoon nañu daaw waaye ren ji gën na yokk ndax ku xool organisation bi ku xool discours yi ku xool thème yi ku xool waxtaan yi nga xam ni yokkute am na waaye nag bidu bàyyi lay am moo mel noonu amul tànk gannaaw tànk kanam la jëm ndax waxu yàlla la te yàlla lu mu wax defe naa kenn mënu ko suul ala kulli alin day jëm si kanam